y a y a y a un problème franchement ci koo xam ne si yow tu tu mm-hmm. alors loolu daal euh, gis naa ni euh, leneen li des mooy la presse aussi xam naa ni presse bi moom vraiment waxtaan ci seen biir ndëpp. askan wi yëpp la war mais presse bi war na leen quoi. Mm-hmm. voilà sincérité. Mm-hmm. ngi ndëpp de. Ah, ndëpp moom. ñu ngi ci ndëpp li non ndëpp. ndëpp moom war nañ ko def ci presse bi en toute sincérité parce que bu fekkente ni en fait copier coller rek la mais loolu ku nekk mën na ko. ñëpp mën nañu moo tax mu yomb léegi mën nga jël doon xaar. Mm. parce que lii lu noble la. fi mu mm. nekk le peuple sénégalais dañoo am constitution moo ko garantir droit à l'information. Mm. alors te loolu yéen bu ngeen ko taxawewul kan moo koy taxawee. kan moo koy taxawee. la il faut informer juste et dommage léeg-léeg da nga gis ni euh, impression bi nga am mooy léeg-léeg ci métier mi dafa mel ni danañ ci leble bor danañ ci fay bor. ah li ciy xeex nga naan la. wax ma léeg-léeg ay missile mën nañ ko jóge fii orienté ko fa yàgg. wëlbati ko orienté wat ko feneen. am na de xam nga loolu ça pose problème donc yaakaar naa daal war ngeen a waxtaan pootum biir. Mm-hmm. moo xam ni danañu dimbali dimbali askan wi véritablement. surtout parce que.